waa voilà ñoo ngi si ñu ñoo ngi dalal ki nga xam ne moom moo di suñu invité di Fata El Presidente bu nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté li nga xam ne moom moo di sénégalais parce que je peux dire que depuis 1995 moo ngi fii nii di ñu jox lépp loo xam ne ni li nga xam ne moom moo di amateurs yi soxla nañ ko ba. li nga xam ne nii moom mooy double album moom on peut première sortie mu ngi ko génn en 2001 Euh, bu ko defee rek euh, maxu ma bàyyi la nga gën a yaatal ak euh, ki nga xam ne ni moom moo di sa sa invité te mu génnee album bu bees. voilà Fata El Presidente ndar-ndar bi sama mbokk ndar-ndar bi donc bi ngi noonu en tout cas. Ah, gars yi demoon nañ ko il sort rarement. <laughs> voilà Fata maa ngi lay nuyu. di la jaajëfal mbaay la nga nuyu ñii lay setaan. maa lay nuyu di DJ Maxu. di nuyu sama grand yi ma fekk ci plateau bi euh, soxna si maa lay béggee bu baax euh, di nuy téléspectateurs yi gars yi xam ne ñu ngi seetaan yëpp quoi merci. voilà donc euh, euh album bi nga xam ne mooy global. taf label. donc mm-hmm. muy mmh. label bi nga xam ne yaa ko teg également. Mm-hmm. sa album bi si mois de novembre bi nga ko génne. Mm-hmm. donc il y pratiquement un mois de cela. ñu jot ko mu am diversité variété bu bu extraordinaire parce que am na featuring également yoo xam def nga ko si comme El Hadj Diouf comme Titi. ah Clayton ñoom euh, Claire ak ñeneen mm-hmm. donc je pense que ni album bu riche la euh, euh, jafe woon na ñaata temps nga liggéey li nga xam mooy album global. bon ci diggante bi def naa ay projet yu bëri yoo xamante ni c' est sorti en digital. Mm-hmm. même bu fekkee ñëw naa présenté ko fii ci diggante bi sax quoi mm-hmm. mais euh, il faut dire qu'un album day évoluer différemment dans l' esprit de l' artiste quoi donc. même mën nga génne yenn projet yoo am na morceau yoo xamante ni du jot génn parce que si album bi nga ko prévoir quoi moom day nekk un peu lu complet génne fi am na benn album bu ma def ak benn américain mm-hmm. bu tudd United boo xamante ni lépp presque ay leket la ay instruments yu traditionnels yu bëri sax te mu ngi mm-hmm. si euh, disponible dans les réseaux digitaux xam et en même temps ay beneen projet boo xamante ni maa ngi ko tuddee woon moo doon Journeyman génn na si diggante bi mais lépp beaucoup plus internet la quoi. Mhm. mais lii c'est un album que j'ai tenu à sortir même en en physique. Mhm. pour xam nga parce que pour man ñu on a un devoir ou en tout cas une obligation de sortir. Mhm. ay projet yoo xamante ni nit ñi suñu jeunes frères yi sax dinañ gën a bàyyi xel ne. ak expérience bi ñu am ak tukki ñu def nii la affaire bi war a mën a demee ko absolument yàgg nga ko prôné de façon dina si ñëw euh, mais euh, euh, projet yooyu nga génne ba si album bi si ñaata temps la c'est-à-dire si quatre ans yi la quatre dernières années yi la wala cinq ans. presque tous les trois ans tous les deux trois ans ma génne projet. ma génne projet mm. donc voilà donc. mu ngi xam nga léegi le paysage musical sénégalais dafa jaxasoo ba nga xamante ne <laughs> gars yi lu bees rek la ñuy bëgg di dégg. waay waay tout le temps le public il est grille de programme yoo xamante ni musiciens yi dañuy retrouver seen bopp si biir. Mhm. y a de musique tellement d'artistes tellement de vidéos. Mhm. que télé yi mënuñ ko. contenir mënuñ ko c'est vrai que du ñu am euh, euh, maanaam euh, heure yi nga xam te ne ñu mën a diffuser loolu. Mm. tey bu ñu xoolee welcome to Sénégal bi. Mm. bu ñu xoolee li nga wax noonu def nga ko américain bi indi si ay calabas leget beeg yooyu mm. donc africanité bi c'est vrai que yàgg nga wax ni. loolu lañ mën a jaay c'est-à-dire tubaab bi américain bi mënoo ñëw di ko jaay leneen euh, euh, tukki nga expérience est-ce que mën nga ñëwaat un tout petit peu si le fait que pour que au moins booy comprendre en tout cas ñu bare commencé nañu comprendre parce que bi nga koy prôné yàgg na. Mm-hmm. Euh, ñu bare doon na leen si clash si forme musique bi ngay def mbalax mm-hmm. ngay def def ko mm-hmm. hip hop ak yooyu maintenant on on se on on se retrouve on se rend compte que ñëpp même chose la ñuy def. mën nga ñëw un tout petit peu si bi nga xam ne surtout euh, welcome to Sénégal gis yu nii vraiment da nga wane voilà Sénégal. Mhm. Euh, euh, mhm. je dis si si si si benn trois quatre minutes. Mhm. mën nga si ñëw. bon pour man lépp àdduna bi lépp représentation la quoi. lépp da ngay wane li nga nekk dëgg-dëgg soo bañuy juum quoi bu fekkee aussi da ngay aspirer si yenn rendez-vous yu mag si àdduna bi quoi. mais bon mën naa comprendre ñun les pays sous-développés ñun am problème mu comprendre comment ça se dans le monde bu fekkee voyager wu ñu bu bëri. mais bu ñu ne ku ci ne rek boo demee ba gis di nga comprendre ne yow sa sa originalité mooy sa sacerdoce quoi mm. donc euh, man pour man nag loolu peut-être peut dama teel a tukki lu bëri mais aussi tout le temps mu nekk xeex nag sama diggante ak ñi nga xamante ne ñoom laay nekkal mm-hmm. di leen gëmloo ne mm-hmm. le rap mi ngi tudd rap si bi mu ñëwee Amérique dans les années quatre vingt mais avant loolu ñun chez nous am na nu mu tuddoon quoi. Mhm. en Afrique mi ngi tuddoon ay taasu ay taaxuraan ay kebetu. man loolu laa gëm. waaw te loolu bi ma koy def sama album je pense que c' était en deux en en quatre vingt dix neuf deux mille. waaw laa waxoon ne rab judd na démb suñu réew ñu koy sàggane te dañu lew mhm. nga bëgg ne ricain te du ne Afrique na sa kanam nga ba ko fa yóbbu ko ci toolu wa teen ya mhm. booba ñu ngi rooti ca teen ya kon ci taasu la rab juddu tam donc loolu yàgg na bi ma ko waxee quoi donc mhm. mais nag xam nga après dafa ça a valu beaucoup de xam nga parce que aussi toujours génération yi dañuy ñëw ak ak internet bi lu mu amoo doole ci kaw jeunes yi xam nga balaa ñuy mën a gëm ne rab dëgg-dëgg am na lu mu tuddoon fii. waaw il faut ku nekk dem ba mbëkku nag. te xam nga yooyu laay bañal sama frère <laughs> dem ba mbëkku yow dem nga am nga ay ah, yow def ak yi américain yi. am hmm. am na am na loo dund ak ñoom. Hmm. Euh, différence bi entre rap euh, américain ak galsen lan nga gis nii moom mooy différence bi. gis nga di hmm. wax nga ko si taasu si kebatu bi amoon si laabaan bi amoon. donc c' est c' est quoi la différence. mais man si est ce que je retrouve toujours si évolution rap américain bi mooy. li ñuy def yëpp man je me retrouve facilement si li ñuy def parce que pour man c'est une culture qui se moom la ñuy moderniser rek quoi mm-hmm. lépp lu xewoon si ñun la lu ñëwaat la lu ñëwaat man nag noonu laa koy aborder ak ñoom mm-hmm. honnêtement noonu laa leen koy waxee mm-hmm. ba pare li gën a intéressant mooy léegi star américaine yëpp ñu ngi bëgg nekk africain ah. mu ngi mhm. def seen album bi mu di seen solin ci seen waxin ba seen idéologie ba mhm. politiquement léegi da ngay gis américain ku nekk mu ngi jéem a bëgg ñëw jël nationalité africaine mhm. ku nekk nee nañ den naa la ñoom xamuñu fan exactement si Afrique la ñu jógee mais xam nañ ni Afrique la ñu la ñu jógee album euh, global euh, douze donc euh, man déglu naa ko personnellement bi ma ko bi mu ko yónnee Euh, thématique ah. éducation mi ngi ci donc welcome to Sénégal seetaan nañ euh, seetaan nañ ko léegi. Mm-hmm. def nga également The Union. Mm-hmm. voilà muy muy rek l'union fait la force donc ak Titi. une belle voix donc El Hadj Diouf tamit def nga ak moom ñoom mën nga ñëw si thème yi nga abordé parce que. bi ma dégloo album bi. par rapport ak li ma doon dégloo rap wala boog booy yi ni ñuy defee vraiment euh, dafa mel ne tey jii benn benn euh, su Ndour buy buy rap ça si si texte quoi. Mhm. parce que man loolu laa déglu parce que texte yi may dégg. Mhm. Euh, booy osé wu ñu bindee noonu. Mhm. c'est quoi ton secret parce que xam nga léegi léegi àdduna bi ak musique bi dafa am exigence su wax lu rëy. wala xam nga wax ay affaire yu graaw pour que nit ñi mën la xam léegi nag bon après da ngay dem boo xam ne yenn maturité yi da ngay xam ne am nga responsabilité yeneen yoo xamante ni ñoo gën a. am solo si yow quoi parce que tamit rab dañ ko mos a def musique boo xamante ni dañ koy tuddee musique de dénonciation mm-hmm. euh, nga xamante ni ñun niñ ci niñ ci adapté Sénégal mooy il faut que chaque fois ñu lay seen ngay sànni xeer nguur gi quoi pour ñu ne jëree nga mm-hmm. donc moo mm-hmm. tax mu xaw a raar artistes yi di aborder ay sujets yu sociaux yoo xamante ni nit ñi dinañ mën a peut-être du impacter si mbéj mais dina mën a nekk loom ku ko toog déglu. di nga xam ni kii ku am responsabilité la quoi lu muy lu muy lu muy donc man pour man c'est des éléments fondamentaux si suñu dund. mooy éducation parce que je vois que. Euh, ñun xeetu yar yi ñu yaree ñun en tout cas génération bi ñu nekk. malheureusement waaw li ci desaat lu bëri ci ñu xaw mel ni ñun di ci bàyyi xel dootul bëriwul. quoi muy nax saay donc pour man c'était fondamental. Euh, jigéen jigéen am na yenn affaire yoo xamante ni da ngay ci ci mbëggeel aussi. Mhm. Mhm. ci sëy. Mhm. Euh, nit ñi ni ñuy bàyyante léegi ci àdduna bi ni nga xamante ni la ñuy. àndee ba pare xam nga nit ñi dañu impulsif. ci jikko la nag loolu. quoi c'est des choses yoo xamante du la marqué. nii d'un coup. Eh, bu ñuy wax si sa noon da kontaan quoi nii voilà. waa ji voilà su maa ngi waaye benn mot su may wax del jàngit noppi quoi. waaw parce que àdduna tamit xam lu bëri dégg nga maa ngi ci wax si biir morceau bi ne bëri na nit ñoo xamante ni. Mhm. du ñu nekk xarit lu dul suñu xay déggee nii. Mm-hmm. yaa ngi wax lu bon sa noonu. sa noonu. tu mm-hmm. vois parce que ñu def la xarit nit ñi dañoo sawar si léegi. Mm-hmm. Eh, dégg ñu ngay wax lu bon si nit pour ñu. xaritoog yow ñu xaritoog yow parce que fekk na am na lu ñuy. lu ñu garder pour kooku tamit quoi donc mhm. pour man jàng noppi tamit si am comme ni mu ko waxee jàng noppi dafa am solo trop mais maa ngi gis euh, ce mhm. dixième titre bi yaa ngi wax African Queen léegi mhm. African Queen boobu noonu le pourquoi lan moo la ci marqué à ce que nga war ko mën a rédiger ak suñu mënee am benn texte boo xam ne nii sa ça ça parle de nos faits nous les femmes mais mais clip am na clip sax ah déjà sama album bi def naa si clip yu bëri yu jot a génn mais ak Covid bi moo doon singalu album bi African mm. Queen mm-hmm. ah, dama ko génnewoon Covid bi ñëw. Mhm. après ma relance ko boo xoolee maa ngi ko def ak euh, soxna si mair Oumou si mhm. ak ay ay ma jël si ay soxna rek ñoo nekk si clip bi mais vraiment. Euh, dama si nekk di jéem a. Mhm. delloo njugal suñu soxna yi ah nekk waa ba nga xamante ni euh, coono yi nga xamante ni ñoom la suñu soxna yi di daj. ak seen bravoure. nga xam boo leen gisee fii comme sénégalaise bu nekk. même dans les pays développés buñ buñ bu mu fa nekkee taxawaay bi ñuy taxaw dafay pur ba nga xamante ni da ngay gis ne euh, Afri sénégalaises yi. Mhm. xaw nañ différente en fait africaines yi. xaw nañ mhm. différente ak yeneen jigéenu. yeneen àdduna bi même bu fekkee suñu yenn jigéen yi am nañu yéen jikko nasaraan. <laughs> mais quand ah, ay jàmbaar lañ yoo xamante ni dañuy ragal ragal nañ quoi. Mhm, voilà euh, Aliou Sow macha dama dama gis ni. Euh, Euh, FETA dafa dafa dafa kii dafa euh, titres yi. Mhm. c'est tout en anglais pratiquement sauf benn titre kese. Mhm. bon alors y a y en a douze ans. Mhm. douze la mais benn kese moo ci nekk wolof moo ci nekk wolof. mooy sama àllarba. mais yeneen yëpp. anglais la est-ce que c'est parce que dafa am beneen public boo xam ne moom la bëgg atteindre. Mm. moo mu def loolu. Mm. est-ce que c'est parce que dafa. jot euh, parce que c'est vrai que depuis quelques années mu ngi voyagé bi mu nekkee jeune au moins une vingtaine d'années ou alors est-ce que dafa dafa am influence wu euh, anglo-saxon yi. Mm. ba nga xam ne moo tax. Euh, mënatul def leneen lu dul muy titre nii parce que sur les douze titres effectivement comme je le dis benn kese moo bu tudd en anglais si en anglais laa sama àllarba. alors mooy la war a si. mais parce que dafa mel ni àllarba mooy. mercredi non. waaw mooy àllarba mais mooy non waxin la sama àllarba. àllarba mooy bu fekkee ni. àllarba mooy li ngay jox sa sa sa maître coran sa maître coran waaw wala wala nit takk ki la jàngal jël sa jabar aussi. ah d'accord. nit bu jë bu fekkee ni sa gel quoi. ku nga bëgg mu takk nit beneen nit takk ko. daf lay jox àllarba aussi. non non non non non non loolu takku dënd kon boobu takku dënd la loolu <laughs> euh, Fata donc pour moi le euh, euh, titre yi en ah anglais. Hmm. sama alarme benn dama dama mooy li nga doon wax léegi rek. comme artiste comme Sénégal moom vraiment on peut dire que. bu dee rab bu ànd ak. mbalax bi dama ko gën a imposer gën ko dëggal fii ba génération yu bëri di ko def hmm. léegi dama doon xaw a mel ni ku leen di laaj sama àllarba daal. ah, ah parce que ah, ah, d'accord maanaam vous avez donné euh, des cours léegi c' est c' est mais <laughs> xaw a tooñ nag si biir ñi may jox dix mille ma naa leen non. ma waaw mais kenn par kenn. <laughs> mais en anglais. Mhm. anglais dafa mos a nekk sama sama sama sama te rëccu ma ko quoi mhm. ay sénégalais lañ mais aussi ay nitu àdduna lañu album bi mi ngi tudd Global Citizen mooy citoyen du monde mm-hmm. parce que morceau bi ma tuddee album bi maa ngi ko def ak El Hadj mm-hmm. maa ngi ciy wax waxu tukki ak nit ni muy jógee ci bërëb di dem si beneen bërëb. donc nekk foo nekk rek. sa dëkk la quoi. yow da ngay peut-être juddoo. juddoo raw. Mhm. am jabar Dakar ngeen ànd dem dëkki France. nga am sa doom juddu nekk si français. tu donc adduna bi dafa dem ba nga xamante ni. nit ñi nit ñi ñoo problème mu. voilà nit ñi ñoo problème mu adapté mais mm. ku nekk fi nga nekk sa dëkk la. donc mooy citoyen du monde donc man nag noonu laa gisee sama. sama àdduna euh, mooy voilà bu ñëwee mooy euh, jiitu. jiitu ci euh, ci àdduna mooy dominer la langue li ñuy naan English is the key am na plan de communication <laughs> promotion bi naka nga ko fas yéene defee bon pour jeexal si album bi. parce que mm-hmm. war a ñëw si compilation. Mm-hmm. bi nga xam jot nga ko def. Mm-hmm. mais c'est la promotion de l' album. bon bi ma ñëwee nii juste rek laa génne album bi. ok mais j'ai vu que Sénégal y a beaucoup d' événements vraiment artistiques. Mhm. les télés sont saturées les événements après man man je me suis dit c'est en cette période quand même waaw je laisse mhm. glisser un peu comme dama produire affaire bi mais dama ci produire aussi samay jeunes frères yow ne dama leen génneel benn compilation ak sama label inspiration mhm. may nag naa bàyyi doucement euh, décembre bi passé janvier yi je vais passer facilement euh, def ay émission télé ay sport pour que nit ñi mën a adapté parce que c'est des albums yoo xamante ni qui méritent quand même des attentions voilà mmh. en 30 secondes rek mm-hmm. suñu mënee am euh, maanaam euh, video bi en 30 secondes ñu am aperçu rek si mm-hmm. li nga xam ni mooy euh, compilation inspiration muy l'album bi album bi nga xam ni compilation la c'est vrai que dafa jël ay man déglu naa ko mais bon mortel en tout cas ñu xool bare na mais mm-hmm. temps bi euh, du ñu ko mm-hmm. permettre euh, da nga ko génne en même temps ak sa album mm-hmm. euh, ñan ñoo si participer bon am nay artistes yoo xamante ni ñoom ñëpp ku ci nekk dama dama dama la xam personnellement ba pare aussi ñu am talent ba pare am talent ba pare amoon obligation xool ne juste ay rappeurs lañ donc ay musique yu mix la quoi am na booy yoo xamante ñoom ñëpp ku ci nekk de talent <coughs> différent dégg naa si sax lu mel na Kabo waay waay waay mooy afro bii ci xaw a kii mm. mais donc ay am na si ay yeneen làkkat yeneen mm. yeneen ci biir Sénégal mm. mm-hmm. donc euh, pour man gën a ubbi ubbi affaire bi la quoi pour man c'est des jeunes yoo xam ne leen di xool ñoom talent mais amul benn profil boo xamante ni. beneen mhm. jàppale bu am seen ginnaaw. malheureusement waaw donc ñoom bi ma leen génnee seen album yi tamit avant may ñëw juste. Mhm. moo j'ai fait de sorte que je devais sortir cet album. Mhm. mais en même temps ku ci ne ñafe naa ba mu am benn artiste américain bu def ak yow morceau bi. remixé ko te loolu aussi c'est des choses qui qui vont arriver quoi donc pour man ñoom ñu ngi ci musique bi mais xamuñu. xam nga défi yi nekk seen kanam parce que musique bi dafa gën a jafe quoi. jafe. Mhm. Euh, waaw waaw c'est que man sama question bi parce que il faut que ma pose ko ma laaj muy kii euh, mhm. euh, Fata. Mhm. ndax musique bi ngay def depuis des années. dégg nga ndax yaa ngi ciy gis sa bopp financièrement. te tamit ou bien ndax yow da nga ñëw ci musique bi am da nga am ba pare ñëw ci musique bi. wala musique bi jox ma la defal. bon euh, question bu am solo la. parce que Sénégal on parle pas vraiment de de position <laughs> financière xam nga bon man il faut dire que dama si ñëw ak zéro franc fi ma jógee sama sori lool. wax dëgg yàlla. Euh, mais sant naa si yàlla nag parce que après j'ai très tôt compris que du rek wax bi ngay wax pour que nit ki di ko jënd parce que quand on sait que Sénégal ils ont perdu cette notion d'achat des albums. Mhm. Sénégal kenn jëndatul quoi nit ñi léegi dem nañ ba musique artistes yi dañ leen di xool mais leen quoi donc man nag j'ai très tôt liggéey. man damay dem depuis ma commencé sama carrière en même temps dama am liggéey parallèle moi j'ai fait et de la télé en même temps que la Bien radio euh, j'ai produit depuis très longtemps j'ai produit ay ay loo xam ne bëri na ay peut-être série sax yooyu gis man maa ko produire mhm. donc j'ai mon label qui est en place et avant loolu j'ai investi sur du vêtement ay boutiques yu ma doon def. su may voyager damay jaay ay saak si mbedd mi damay jaay lu ne quoi tu vois. ah macha allah <laughs> donc donc man toujours compris que. Uh-huh. pour nga mën a indépendant si sa musique tamit il faut nga liggéey quoi. Uh-huh. il faut dara. il faut nga allier koog dara. donc uh-huh. damay sant yàlla parce que musique bi je veux dire moo ma jox possibilité yooyu yëpp. tey jii sama jabar comme samay doom yëpp ñuy Amérique. te vraiment man Saint-Louis laa jógee. te à travers cela la la amee possibilité yooyu donc. c'est pour dire que musique bi am na nu mu lay fayee. Mhm. boo ko jëmmalee wala nga fulaal ko quoi. parce que mhm. tamit dëkk lañu nekk ba xamante ni. Mhm. gars yi jënduñu gars yi bu ñu la xoolee sax. bugguñu la gis ci situation yi jafe te jënduñu. malheureusement malheureusement te artistes yi ni ñuy ni ñuy ni seen carrière tout le temps gis nga que. waaw après ay ay c'est un peu difficile. téléthon lay doon ak yu kenn xam. voilà voilà merci Fata donc euh, waxtu wi euh, dab nañu. mais booy bi ah. dafa booy bi dafa civilisé quoi. non mais ndax ndax non non non ndax ndax la ndax ndax la nu mu waxee ndax ndax. yi bon voilà donc Fata merci kontaan nañu donc le mot la fin fin ça sera quoi de façon mm. euh, mm-hmm. euh, ñu si mën a jël mm-hmm. mm-hmm. euh, yi mën a découvrir si nekk parce que c'est mortel ouais, merci beaucoup mais kontaan naa trop si invité bi invitation bi kontaan naa si plateau bi merci pour tout donc bëgg naa bu baax DJ Makhou kontaan naa kontaan nañu si yow jaajëfal nag waa Autriche ah, ñu ngi suivre l'émission en direct ñu ngi koy jaajëfal DJ Zissa merci beaucoup DJ Famara également si appui technique bi ñu koy jox cër ju mat sëkk eh, tukulëru baay moom nee na moom euh, soppe euh, Fata la donc ils sont nombreux ñi nga xam ne bi ñu publier rek euh, ni Fata moo war a ñëw mm-hmm. vraiment dañu réagir kon nag on on espère a été à la hauteur mm-hmm. si question yooyu donc mm-hmm. temps bi nag moom moo ñuy xooj parce que Fata moom xajul si vingt mais bon ce n'est que partie remise merci Fata jaajëfal ñu doon suivre yëpp à travers cette chaîne muy rek Walf TV petit déj beneen mercredi beneen daanaan incha allah mercredi prochain nag xaar leen parce que kii ñëw. Mm. à suivre. <laughs>